bi nga xamee ne yàlla def na ñi nekkoon ak yéen di liggéey pendant sept ans ba son excellence la président Macky Sall bi ñu jàppee élection yi moom mi nga xam ne mooy li jin njaag mooy njaag mu tànn ma teg ma ci boppu commune bi nee ma wóolu naa la pour nga doxalaat pour nga am deuxième mandat ma sukkandi lool ci kaw ñi nga xam ne mooy sama collaborateurs yi ak population bi ba yàlla dimbale tey ñi féete vraiment suñu réélection loolu gàcce ngalaama son excellence donc président Macky Sall ñu ngi lay sant di la gërëm ci confiance bi parce que boo ñu tànnutoon xëy na duñu doon mën a nekk fii mais yow yaa ñu tànn moo tax tey ñi nekk fii ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la wax ne aussi li ñu sasoon yaakaar naa ne bay nañ suñu waar ba mu sotti parce que falaat ne ñi ak score bu baax dañoo àndoon ak suñuy nawle suñuy naataangoo dem compétir yàlla def population bi tànn ñi jiital ñi vraiment donc population boobu heure bii tey war nañ taxaw delloo leen njukkal jaajëfal leen wax leen vraiment li gàcce ngaalaama jëri ngeen jëf liggéey ngeen liggéey bu rafet donc 4487 électeurs moo amoon ci commune Kayen ñi nga xam ne wote nañ ak ñi wotewul yëpp jaajëfal nañ leen jaajëfal nañ aussi ñi nga xam ne ñoo ñu permettre ñi am compétition mooy ñi sampoon seen dënd ñoom itam ne ñooñu dañoo bëggoon vraiment ñi fal leen yàlla def na ñun lañ tànn mais ñu ngi leen di taalal loxo di leen wax ne bu nit bëggee def li mu war a def bu paree yàlla bu tànnee dugal ko ci xolu nit ñi bañ ne kooku la ñëpp nañ joxante loxo ñu liggéey parce que commune loolu la laaj commune la boo xam ne kenn mënu dem bàyyi moromam donc dañu war a jàppalante encore liggéey suñu commune loolu ci foofu laay waxee ne kenn ku ne lu la naqari woon ci campagne bi na nga ko fàttee lépp lu nga xam ne lu doon jafe-jafe maa lay ñaan nga bàyyi ko ci ginnaaw ñi bokkuwaat joxante loxo bokk suñu doole bokk suñuy xel ak suñuy xalaat liggéey commune bi commune bi dem ci émergence parce que population bi loolu la bëgg donc yéen ñëpp maa leen di invité à que ñu unir ñu liggéey pour commune bi dem ci kanam bu loolu weesoo nag damay profito ci antenne bi pour wax ne gannaaw bu ñu falee fal bu rafet ba ñu toogaat ñu ngi bëgg aussi doxal suñu commune ci li nga xam ne premièrement mooy intercommunalité parce que tey kenn kenn mënul boppam dara il faut ñi bokk ndey bokk baay ñi liggéey lan mooy loolu communes yi nga xam ne tey ñoom ñoo dend particulièrement commune de Bamba ak commune de Mereto communes yooyu bëgg nañ ak communes yi nekk ci yeneen région yi ñi boole suñu doolee fu mel ni Koungheul Kayen yoon la boo xam ne yàgg nañ koo daw yàgg nañ koo jooy commune u Fass Cekkeen na ñëw ñu joxante loxo ñi bokk dem uuti pour ñu am yoon bu ñëw fii parce que suñu nit bëgg nañ ubbeekoo ci zone Koungheul loolu nekk na loo xam ne suñu mébét la danañ ko dox beneen bi mooy di commune Bamba Thialène commune Mereto boole ko ak conseil départemental bu Koumpentoum yaakaar naa ne bu ñu boolee suñu doole li nga xam ne mooy piste bi nekk diggante Mereto diggante euh, Massembe ak Bamba Thialène war nañ ko mën a defar muy raaraan boo xam ne danañu jàppale te aussi bëgg naa ñu jàppale ñu yoon bi nga xam ne dafa jóge fee ci Koupentoum jaar jam-jam wàcc si noonu ay numaan ñëw ba fii ci Kayen te mu prolongé benn bretelle dem Kanta Kaba mu nekk loo xam ne lu lu ñu bëgg ñu defal ñi ko la ba ci frontière ci kaanuma fi nga xam ne poste la boo xam ne ay jafe-jafe nawet daf ci am donc loolu intercommunalité mun nañu ci jàppale en rapport ak le président du conseil départemental ak l'équipe départementale bi nga xam ne tey yàlla boole nañu ci donc vraiment loolu nekk na suñu cri de cœur beneen mot bi may lancé mooy ñun dañoo fal président Macky depuis 2012 dellu di continuer di ko fal lépp lum ñu dénk ci élection yaakaar naa ni buñ nekkul pee bokk nañ ci cinq premier yi donc jot na fi mu toll nii président Macky bàyyi xel ci ñun lan mooy loolu fi nga xamee ne am na communes yu bëri yoo xam ne dañoo wàcc ci suuf ay opposition di ko gagné commune Kayeen ak commune département Koumpentoum ak conseil département dañoo gañe ba mu rafet kon yoon na fi mu toll nii président jox ñi ñun itam suñu cër.